alhamdulilah. grand noo tudd. Sam Thiam. Sam Thiam ci loo nekk. maa ngi nii rek gis nga de maa ngi nii rek si place yaa ngi a xam. di soulager ñëw di soulager. waaw waaw soulager kase. di nga xooli. non neex na trop moom. ñi ma waroon continuer tàngoor rek moo koy yàq tàngoor bi quoi. ak gis nga grand fii ni mu feesee nii dell. non fii kay lépp jàmm. lépp jàmm fii kay toj kaan pàccal ngoom rek rek bëgg. nga ne wa. non gis nga xale bi sax moo di plage. neex na trop. ah am na ñu naan am naa yu xew si biir géej gi. ah loolu ñu ne seen vie privée la ko. Ah. waaw est-ce que yow gis nga ne loolu sax normal nga ñëw pour sangu di def yeneen ci biir. non du yoon loolu moom du yoon. rafetlu ak xale yi fi nekk. boo ko gis tamit day yàq xale yëpp loolu benn ah ah. non ànd maa kii maa boobu noonu ànd. ah yow sax yéen a ànd. waaw gars yi ñu bëri di ànd ak seen ay copines ak yooyu noonu. waaye def yi affaire yi ñàkk affaire yi si biir loolu dëgg la. loolu moom ak xale yi nga ko gis biiram bu màggee naa xale yi li ñuy def di yoon te fekk na si mag ngeen ko gisee waaw bu baax la bu baax te lii du yoon tamit ok euh, grand ah. nan la ñuy beñe bu fanaan en français beñe bu fanaan beñe dormir <laughs> grand ci loo nekk. man dama nekkoon. ci loo nekkoon. dama nekkoon grand de. <laughs> ci de. Ah, maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm non bu naa wax loolu musiba la. alors grand looy dundee ak yow. ah RIP commencé na de mi commencé neex na de xamoon na ba xam ni lay continuer. ah li ñu dëgg si sangu si biir géej bi yow loo ci xalaat. sangu si biir géej bi ah, raxal ci baxal lu mel ne xanaa ay xeer la ba. ay déedéet du ay xeer kay ah. ah, naa xam loolu nu muy demee de. waaw ah. gannaaw nu ñuy waxee fanaan en France. ba ñëw fanaan loolu ba ñëw fanaan ba ñëw fanaan bu koy waxee de sax am bañ am fanaanoo. <laughs> noo tudd. maa ngi tudd Mbaye Samb. Mbaye Mbour. waaw mën yow ñoo wax xam. ah loolu nee na tontu bàyyi ko. ok alors yow nan nga dundee été bi. bon été bi ñu ngi koy dund waaw ñu ngi koy dund nice parce que boo liggéeyee semaine bi yëpp bu fekkee ne mën nga génn nga nga nga relaxé wàcc stressé wu liggéey bi tuuti ànd ak say xarit génn ñëw weekend ñëw plage voilà. ok alors yow yow da nga ñëw en couple wala yow kese. bon en couple. en couple alors soxna si. ñu ngi fay toog. <laughs> yow marié nga wala célibataire. non célibataire la waaye. waaw ah, célibataire la da ngay làqatu est-ce que amoo keneen koy làqatu. non làqatu ma keneen. Ah, grand yow ni ñuy waxee euh, ataay bu fanaan en français. ataay fanaan <laughs> est-ce que nekkul euh, te. ok. si loo nekk maa ngi jàmm bu baax alhamdulilah. noo neex na torop sax macha allah. mbaa de waaw. Ah, nan ngeen gisee ak fii nii plage yi ni mu feesee. plage bi na macha allah. dafa ne ni yéen a yéen ñëw fii yéen passé la journée. non non dañoo añ ba pare ñëw. ok euh, alors benn question la lay posé. nan la ñuy waxee bañ bu fanaan ci français. xaw ma xaw ma. xamoo ko noonu. ok merci. Euh, léegi yow ca wala yaa ngi monsieur yi naan. maag famille bi yëpp ñoo ànd maa xale yi. oui sant yàlla xam nga Abdoulaye. Abdoulaye. Mhm. Uh-huh. examen. non dama examen yow ah, ah, dama jël ah stress examen yi. non booy booy sama jigéen ñi dañ doon examen. ok waaw ah, ñoom ñoo indi woon géej gaa décompressé. Mhm. yaa ma gën a xam. d' accord alors yow nga gisee parents yi nga xam ne dañuy indi seen géej pour seen doom yi pour ñu feex lu mais yaa ngi gis ñoo xam ne ñu ngi noyé si biir ndox bi loolu ci xalaat. ba mun naa ni responsabilité partagée la parce que parents yi duñ par bu ñu yëgoon xamoon ni bu ñu ñëwee doo xale yi dinañ dépassé seen i limite mun naa ne duñu leen fi indi mais je pense pas que ni noyade bu ci xale yi respecté géej gi respecté limite mètre nageur yi yaakaar naa jéeya du am daal sama xalaat bu mais xale nag dafa nekk koo xam ne neexut a surveiller moo tax même bu ñu ñëwee si côté tefes gi nañ leen xool bu baax moo moo gën a wóor daal nañ leen xool bu baax waaw moo gën a wóor daal. ok alors nga ni yow nan la ñuy waxee bañe bu fanaan en français. bah di bañe dormi et réveillé. <laughs> mais tu es belle macha allah waaw alors nan nga dundee tey été bi fii. Ah, Ah, ok yow fi ngeen yendu. Eh, ñëw waaw yendu waaw après ñibbiwaat. ok léegi tàngaay bi moo tax. tàngaay bi tax ñëpp di ñëw ci plage bi. Uh-huh. waaw moo tax. ok alors yow nan nga gisee volet bi temps yi ci xale yu jigéen soxna si yaa ngi daw. ok alors léegi nan la ñuy waxee yow ataay bu fanaan en français. ataay bu fanaan. non uh. je sais pas. moo xaw léegi pour yow nan la ñuy waxee léegi beignet bu fanaan en se beignet bu fanaan. beignet bu fanaan je sais pas. ah alors soxna si ci la nekk. ça va. yaa ngi si jàmm. waaw alors nan nga dundee affaire bi fii nii. bon fii nii neex na. dañuy ñëw pour changer air. wàccee stress bi waaw. alors ñu gis ne comme. xale yi dañuy ñëw bëri en famille mais ñu gis ni ci biir am na ñoo xam ne ay xale dañuy gisee loolu noonu ak parents yi. bon parents yi seen doom yi protéger leen vu que dañuy bëgg féex lu ndox mi te kër yi dafa tàng dafa xat en ñëw ànd seen doom yi féexlu bon weekend wàññiwul leen dara ñu jàppale xale yi pour ñu changer air génne su jàng bi. est ce que ñoom tamit du ñu xoolaat seen i ñu gis ne ay xale yu ndaw day si géej gi bon c'est parce que des fois am na xale yoo xam dañuy génn seen parents duñ leen yëg dañuy ñëw rek dem si géej gi noonu te duñ leen surveiller loolu moo tax ñuy napp ci ëpp. alors merci fanaan en France. bañ a fanaan. bañ fanaan xaw dundee été bi fii dara ko ñëwee Kaolack mais yéen neex na moom neex na trop waaw waxate yi lan ngeen lan ngeen déggee ni suuf bi ci xale yu jigéen ñi boole beeg suuf <laughs> muy def buzz daal muy def buzz man wala day may jëm may siiwee uh-huh. nga xalaat ci volet bi yow. xale jigéen di volet. lan nga ci xalaat. ah loolu. mais loolu est-ce jàpp nga ni normal la. non non du lu normal mais ku nekk ak sa rek. Euh, mais boo leen doon conseil rek leen wax. ah bu ma leen doon conseil dama leen wax ku ñu bàyyi ko. loolu laa leen mën a conseillé pour ñu bàyyi ko. ok merci beaucoup. waaw merci. ba tey. lan la question kii bi. loolu di en français loolu noonu. am na ci xale yi tamit pour ñu wéy. waaw wesh. léegi benn question rek nga leen doon dégg nga. alors nan la ñu waxee ataay bu fanaan en français. ataay bu fanaan. bu fanaan. tey en doom bi. tey en doom bi. mbaa yéen a ngi si jàmm. bi. affaire ban. noo leen dundee été bi. te été baa neex moom. été bi moom dafa neex moom barki awuraan. dafa tàng nag dëkk bee tàng. yaa ma gën a xam man maa ngi tudd Pierre Edouard Malou gën a neex si àdduna bi. déggal ma lool. barki awuraan. gis naax see. man man ay xale jigéen ñoo ànd de ana ñu sax. man man gisutuma leen de. xale yi yooyu sa gars yi bàyyi ñu la dem. xale yi xale yi jigéen yaa ngi daal ñu ngi noonu. yéen daal comme man ngay. ñoo garaawul garaawul. ko ma war a sangoo moom gisutuma ko. lu tax sa gel bi fas rek. ma ci xam loolu mais. waxuñu la métti non non damaa ñëw fii de sant ak moom. waaw ah. ñeneen ñi nangu ko si man te loolu jaaduwul. garaaw loo xam ma ci xam complexe rek. nangu tey. xaar ma ñëw sa yow daa ma doon problème. Ah. fii jigéen boo xëcc ma bañ. <laughs> Euh, te dañoo ñëw rek na ñëw pour xëcc waaw non non bu xëccee nee na ñëw pour sangu ñun dëkk ñu fi sax ñoo a plateau. quoi ni gars yi sangoo si géej gi loolu dama kaa ñaawlu quoi. lu ci am non dama fa gis lu garaaw barke alxuraan karim loolu war nañ ko xoolaat ñun dañoo ñëw pour sangu nii xam nga rek am na ñoo xam ni sanguwuñ ci géej gi quoi. dañuy fo dañuy fo ndax yooyu gis ñi génnee affaire bi te loolu jaaduwul. moom maa ngi gis bi yaa gis lii maa gis ñi génne ah! waaw. sëñ bi noonu. Badou. yaa ah, na de neex na ah. naa dem tey suba. naaj waaw. kon waaw fii naka la waxee yow bañ a bu ko naan en pain au lait euh, gi pain au lait bière. waaw. nan la ñuy waxee ndox mu en français. ok passez la nuit ici. Okay. grand. de <laughs>